لك الحمد الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu santaar suñu boroom subhanahu wa taala ci dajawaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind ci suñu wàllu diini mu jëm ci fiq rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin yàlla bu nammee aw yiw cib jaamam da koy xamal diineem loolu nag ñu ngi ciy topp téere bii di risaala bu ibn abi zayd alxayrawaani rahimahullah yëgsi woon ci fanweereelu bunt bi ak juróom ñaar baabun fi ahkaami dimaai wal xuduud jëloon ci ay bind ba tey ñi nga war a jël wa man zana min xurrin muhsan bu dee ñu yor traduction yu xonq yi mi ngi ci page quatre-vingt-dix-sept bi bu dee ñu yor samarudaani bi ñu ngi ci cinq cent quatre-vingt-onze ca ligne bu njëkk ba page cinq cent quatre-vingt-onze ci ligne bu njëkk bi wa man zana min xurrin muhsan kon mbokk ki gannaaw ba ñuy jëlee ay atte yu bari ci wàllu la nga xam ne mooy rey nit mi ngi ci toppal la nga xam ne moo ko rey lënkoo nañu lool soo demee ca suratul an'am sunu borom lënkali ne rey nit ak njaaloo soo demee ca suratu isra lënka ñi ne fa rey nit ak njaaloo danga koy fekk ca furqaan ak feneen fu dul foofu ndax la nga xame ne ni noonu la njaaloo nekk musiba moo tax yow mi yor téere bi mu ni man zana min xurrin muhsan koo xam ne daa njaaloo ca gor la boo xam ni dafa sangewu wala fi ñuy wax dafa sangewu rujima xatta yamut dañ koy dóor ay xeer ba baa muy faat wal ixsaan sangewu nag mooy lan mooy an yatazawaja imraatan nikahan saxiixa mooy mu takk benn soxna ci takk goo xam ne takk gu wér la wa yata'aha wat'an saxiixa gannaaw ba mu ànd ak moom cib lal ànd goo xamee ni nii ànd gu wér la mooy na borom kër di ànd ak soxnaam fa in lam yuxsan su dee ne moom sangewul julide mi'ata jalda dañ ko dóor téeméeri yar wa garrabahu al imam ila baladin axir axar imam yóbbu ko mu daldi wéeti ci beneen dëkk wa xubisa fiihi aman ñu daldi ko fay tëj at moo xam ne du génn dëkk ba wa ala al abdi fi zina xamsuuna jalda amma bu dee ab jaam moom ci njaaloo juróom fukki yar lañ koy dóor wa kazalika al amma loolu it la ñuy wax ci jaam bu jigéen wa in kaana mutazawijayni doonte ne nekkoon nañ ci biir sëy dotee bu njaaloo kenn du leen rey dañ leen di dóor rek wala taxriba alayhima wa ala al mar'a kenn du leen jëlit di leen génn dëkk ba bu dee ay jaam lañu jigéen it kenn du ko génn dëkk ba mi ngi noonu mbokk kon li ñu jot a jàng day wax ni ki nga xam ne takk na soxna ci sëy boo xam ne sëy bu lislaam reconnaître la ne lii day sëyub lislaam la gannaaw ba mu soxna soosi mu ànd ak moom ñu jébbal ko ko mu ànd ak moom même bu doon benn guddee jeex na ku mel noonu fum njaaloo ci islam dani nañ ko dóor ay xeer ba mu faatu su ko defee dañu koy gasal pax mbooloo tim ko ñu koy dóor ay xeer ba ba muy faatu loolee nekk benn jaj njëree ñi nga xam ni dañoo nekk ci société bi te yàlla wërsëgal leen ñu mës a sëy ngalawaay ñu moytu bakkaar bu bon boobee nga xam ne nii moom mooy bakkaaru njaaloo boobee nga xam ne xatta soo dellu woon ci bàyyi ma yu bari rawatina li nga xam ne mooy baaxoñ yi suñu borom yàlla tudd ci ab téeréem ñoo jàngal doomu aadama la ñuy sula siñu néew bépp baaxoñ boo xam ne dafa njaaloog soxna jaambur yeneen baaxoñ yi dañ koy wër jàpp ko juge ko rey ko loolu mbokk kawtéef la boo xam ne suñu borom yàlla won nañu ko ci loolu su dee ne nag waa ji musul takk soxna walla bi mu tekkee soxna musul ànd ak moom ci lal ku mel nii même bu amoon soixante-dix ans it su njaaloo kenn du ko rey dañ koy yóbbu koy ci penc ma door ko fa la nga xam ne moom mooy téeméeri yar door ko fa téeméeri yar loolu mooy heure boo xamee ni nii njaaloo go sax na ci moom gannaaw ba it imam bi te ma ngi ci jublu kilifa gi yor atteb dëkk ba interdire xale bu góor bi dàq ko mu dem ci beneen dëkk pendant un an boo xam ne du gisante xale bu jigéen bi doonte ne bu doon suñu jamonoy tey xanaa fokk ñu interdire ko portable encore ndax l'islam lim ci bañ mooy ku ne xam ne ni ni wala fii lañ naan may ma moo jafe waaye dolli ma jafewul su ko defee ki nga xam ne ab jigéen la njaaloo ga ngay jëkk a def ak moom loolu moo jafe amma bu ngeen xisee ba njaaloo c'est fini ker sa jeex na sa diggante ak moom looloo tax islam ne ku góor ki dañ koo génne dëkk bi pendant un an du gisanteeg soxna si ngiree ku nekk mën a fàtte sa moroom loolu la wax ci wàll googe amma bu doonte ni ay jaam lañu ñoom na doon sëy na ñoo ñàkk nañoo sëy moom kenn du leen rey dañ leen di dóor rek ku nekk juróom fukki yar te it kenn du leen génn dëkk bi ndax li ñu nekkee lii di moomeelu jàmbur su ko defee mbokk li mooy atteeb lislaam ci ku njaaloo fekk maslaam soxna li may àtteeb lislaam ci ku njaaloo fekk musulaam soxna loolu dañuy won bañ gu ko yàlla subhanahu wa taala bañ ak ni mu nekk musiba koo xam ne nii yàlla dala ko nattoo ci àtteeb lislaam amu fa nga la way del nekk di tuub di toroxlu jëm sa boroom ba baa ngay dajeeg moom su dee nii tuub googu sell na sa biir xol suñu borom yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem dana doon koo xam ne ku la jéggal la waaye nañ bàyyi xel atte bi ci yàlla teg loolu rek day mën a jajji borom xel lii mën a def day bu doon atte bi lislaam fi dañ maa war a rey wala dañ maa war a yóbbu ca penc ma dóor ma téeméeri yar ku bàyyi loolu xel waxuma la yàlla déggee ca àllaaxira waaye loolu rek war na laa jajji buñ jëlee beneen bind mu ne wala yuhaddu zani illa bi itiraaf kenn du teg loi ci aji njaalookat xanaa lu dul moom moo ko nangul boppam aw bi xamlin yazharu wala boog ëmb boo xam ne daa feeñ te jigéen aw bi shahaadati arbaati rijalin ahraar wala seedeb ñeenti góor yoo xam ne ay góor lañu baalixiina udulin doon ñu majeur doon ñoo xam ni ñu maandu lañu yarawnahu kal mirwadi fil mukhala ñu gis njaaloo ga comme bant ba ñuy dugal ca biteel ba ñuy tësngaloo ki jël bant yor biteel bi muy tësngaloo da koy jël dugal ci biir biteel ba ñoom ñeenti ñépp ñu seede ni awra ku góor ka gis nañu ma nga dugg ca awra ku jigéen ka wa yashhaduuna fi waqtin waaxid ñu seede ko ci benn waxtu wa in lam yutim ahaduhum sifa su dee kenn ci ñoom matalul melokaan boobu ñu la wax sànq xudda salaasa des na teg attee ca ñetti ña alazina atammuha ci ñooñu nga xam ne dañoo matal melokaan ba mi ngi noonu mbokk suñu boroom tëral na ay luwaam ci njaaloo ku njaaloo mësa sëy rey leen mësa sëy duma leen waaw naka la lislaam di xame ni kii yeyoo nar loolu ba ci jëkk mooy waa ji ñëw ne ca attekat bi ne ko ah man kat dama njaaloo man kat dama njaaloo nañ ma laabal te loolu mbokk julit te yonent bi alayhi salaam bi muy dund am na benn góor bu ñu wax Malik ñëw ni ci moom na ko yum yàlla yónni nañu jël atteb yàlla teg ci man ndax man mii kat njaaloo naa yonent bi tànqam lu ko mu ñëw seede ko ci boppam ñeenti yoon yonent bi alayhi salaam ne nañ ko rey ñu teg ci ay jamono beneen jigéen bu ñu wax alxamidiya ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yow mi yàlla yónni man mii day njaaloo naa ëmb bii nekk sama biir dooy mi njaaloo la yeneen ci biir sallallahu alayhi wa sallam ne ko waa demal ba wasin ba mu wasinee mu joxaat ko ne ko demal ba mu mën a nàmp ba mu mën a doylu ci yow soxna sa dem ba ñëw ci ñetteelu yoon ba ca la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dooga santaane ni nañ ko rey bokk nañ ña ko doon rey mooy Xaalid ibnu Walid ba mu ko dóoree benn xeer deret ji tis dal ci kawam mu rëbb ko gannaaw ba yonent bi alei salatu wasalaam ne Xaalid xanaa xamoo ne kii tuub gi mu tuub bu ñu ko mënoon a séddale am mbooloo mën na leen tabbal aljanna loolu la waxoon Omar ibn Xattaab bi ba yonent bi jógee ne da koy jullee Omar na ko kii noo koy jullee donte ne yonent bi alei salaam gannaaw loolu dafa sant jurit ñi ne leen ku yàlla nattoo ci musiba yi na sutural boppam na sutural boppam képp ku ñëw nag ci ñun daan teg loi yàlla ci moom waaye même bu doon loi l'islam mi ngi fi islam du rafetlu nga def bakkaar boo xam ni yàlla sutural na la ca kenn yégu ko yow nga ñëw di siiwal sa bopp mi ngi noonu ma sam fii ci camp pénal benn jeune mbokk yi xutba ci wàllu njaaloog attee ci nekk ndeysaan mu jóg xaacu waaw man dama viole doomu jàmbur ji indi ma fii léegi nag man naka lay def ba yàlla baal ma gis ngeen ndax jàpp ni ne loi amul fii waaye li ñuy wax mooy du ne loi biñ teg ci kaw mooy dindi bakkaar bi bakkaar bi la koy dindi mooy tuub gu sell gi nga xam ne da nga koo def bu fi loi nekkoo din nga nangu ndogalu digalu yàlla ci loolu naam loolu moom mooy dindi bakkaar ba kon loolu mooy bu jëkk bi mooy waa ji wala soxna si ñëw ci attekat bi na ko dama njaaloo amma ñaareelu loi bi mu fan lay jóge benn soxnaa ngi nii xëy xëy ëmb mi ngi noonu xëy xëy ëmb ci ëmb boobee xamuluñ ko borom kër kookit dañ koy rey doonte ni bind yi ñëw ci kanam daan dellusiwaat ci kaa am ñetteel bi mooy ñeenti góor yoo xam ne ay gor yu majeur yu maandu lañu ku maandu mooy koo xam ne kenn mësu koo xamal bakkaar yu mag ya kenn mësu koo xamal ak fen ñu ñëw ci attekat bi ñoom ñépp ñu bokk seede man mii day seede naa sama bët bi tege na ci awra ku góor ki ci biir awra ku jigéen ki ñoom ñeenti ñépp ñu seede ko su boobaa ca la lislaam dooga ah indi atte teg ko ci ñaar ñooñu ñu tuumaal waaye mbokk loolu xam nañ lu jafe la mu ne bu doonte ne ñetti ñi ñoo ñëw seede loolu ñeenteel bi moom bi mu ñëwee mu ne ah man daal dëgg-dëgg gis naa waa ji ci kaw soxna si na nga def yore mu neen nag gis naa waa ji ci kaw soxna si waaye seedewul na awra baa nga ci biir ñoom ñett ñi seede loolu ñépp la ñuy duma nga noonu ñoom ñett ñépp la ñuy duma looloo tax daanaka mbokk seede njaaloo fàttaliku ma ci lu ma jàng xatta jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo xam ne mës nañ koo rey fekk ñeenti nit ñoo ñëw seede ko nga xam ne loolu lu jafe la dañuy wax jamono Umar ibn Khattab am na ñeenti nit ñu ñëw ci Omar ne dañoo gis diw ak diw ñu ngay njaaloo ñoom ñetti ñépp ku nekk ne maa ko seede awra ko góor ko ci awra ko jigéen bu ñu woon ñeenteel bi mu ne ah dëgg-dëgg daal man daal gis naa leen ci biir néeg ba gis naa leen ñu tëdd Omar ne ñii nañ leen duma ñett ñii nañ leen duma ñu duma leen ba pare benn caamin ba ci bokkoon ne duma ngeen ma de waaye wallahi maa ko gis ma ngay njaaloo Omar na jàppaat leen yaa ngi dégg dégg nga donte ne ko mel na Ali sax bi nga doon wax na ah kii day xaw naa mat ñeenteelu seede waaye mbokk dafa am dëgg ci nit ñi ak dëgg ci yàlla bu doon te ne ne tey rey nit xolo rey nit moo gën a garaaw ñaari jullit ñu seede woon nañ fekk nañ diw moo rey diw atte boobu lislaam da ciy da ciy da ciy dëgg ba mën nañ rey kooku ñaar rek ñoo ko seede amma bu dee njaaloo moom suñ borom yàlla ci xikmaam da ko taral fokk ñeenti yi mat ñetti jullit buñ ñëwoon fekk góor ci kaw soxna ñoom ñépp ñu tege seen bët ca loolu suñ ko seedee islam da koy rejeté moo tax borom bi ne ulaika inda allah humul kazibun su dee ne matu matuñu ñeen ca yàlla ñooy fenkat yi doonte ne wax nañ dëgg waaye ci yàlla ay fenkat la ndax dañoo war a matal ñeenti doog a mën a seede loolu loolu kon la wax ci wàllu googee buñ jëlee beneen bind mu ne wala xadda ala man lam yaxtalim kenn du teg loi di duma wala di rey koo xam ne tëddagul ba gént ay majeuragul wa yuxaddu waati u ama amati waalidihi des na teg loi ci ki sëyëg jaamu baayam jaam bu jigéen bu baayam wala yuxaddu waati u amati waladihi waaye ne kenn du teg loi ci koo xam ne jaam bu jigéen bu sa doom moom moom nga sëyal wa tu tuqawwamu alayhi doonte ne dañ xool ñaata la war a jar ñu teg la ko nga jënd ko wa in lam taxmil doonte ne ne ëmb jógewul ci sëy ba wa yuaddabu shariku fi l amma yattaawha des na teg correction mooy yar koo xam ne dafa bokk ak nit jaam ba pare wëlbati ko sëy ak jaam bi wa yadmadu qiyamatu qimataha gannaaw ba dana garantir valeuru jaam boobe in kaana lahu maal su dee am na alal fa in lam taxmil su dee ne nag ëmb jógewul ci sëy ba fa shariku bil xiyaar kam bokkal jaam ba la ñuy tànnaloo bayna an yatamaasaka aw tuqawwama alayhi ci mu téye jaam bi wala ñu jël valeur ba delloo ko ko waaw kii day wax ni ay xale yoo xam ni dañ leen a fekk ñuy njaaloo waaye majeur guñu tëddaguñu ba gént di mën a nekk seen biir ay douze ans kii treize ans mu ne ñu mel nii buñ leen fekkee ñuy njaaloo kenn du leen dóor téeméeri yar waaye nag dañ leen corriger dañ leen corrigé te mooy duma leen duma yuy tee ñuy def loolu ñu ngi noonu ca lay indi it beneen atte boo xam ne amuñu ko suñ jamono yi tey mooy ki nga xam ne baayam daa am jàm bu jigéen mu dem njaaloog moom ku mel noonu dañuy teg ci moom luwaay lislaam amma ci jaaloog jaamu doomam islam day jàpp ni sa doom li alalam presque presque sa alal la moo tax dañ naan ku mel noonu moom kenn du teg ci moom luwa waaye nag su boobaa bàyyi dañuy xool la jàmba war a jar mu delloo ko doom ji ca féete woo la nga xam ne mooy jaam boobee ñaari nit bu doon dañoo bokk benn jaam bu jigéen kenn ci ñoom amul droit di njaaloog moom di sëy ak moom ndax jaam bi nga amee droit sëyal mooy jaam boo xam ne yaa ko moom amma boo bokk kenn bokk ca su ko defee su dee kenn ka dafa njaaloog moom du tex ñu teg ci moom loi ndax la nga xam ni wal wallam la bu mu am ca jaam ba waaye it dañuy xool bu doon jaam ba da doon jar deux cent mille ñu ne ko fokk nga génne cent mille jox ko ki nga bokkal jaam bi féetewoo ak jaam bi comme moom sëy nga ak moom loolu mi ngi noonu mu ne buñ jëlee beneen bind wa in qaalat imraatun biha xamlun su dee benn jigéen bu ànd ak ëmb daa ñëw ni ustikrihtu man de dañ ma forcé lam tusaddaq kenn du ko dëggal ci loolu wa xuddat tees na teg ci moom luwaaba illa an taarifa bayinatun lu dul ñu xam preuve bu leer annaha annaha tuhmilat ne moom kat dañ koo jëloon yóbbu ko xatta raaba alayha ba ba ñuy dem di faddu ak moom ay di làqoog moom aw jaat mustaxiifa inda nazila wala mu ñëw di woo wallu ci jamono bi mbir mi xewee aw jaat tadmi wala ñu ñëw gis deret jaa ngay deret jaa ngay tuuru ci moom su doonte ne jonk la mu ne wa nasraniyu bu dee ab chrétien ida gasaba gasaba almuslima su dee dafa këf ja ab julit fi zina ci njaaloo qutila ku mel noonu des koy rey wa in raja almuqirru bi zina uqiila wa turika koo xam ne daa dellu gannaaw calam saxaloon ci boppam ne ma kat ma dama njaaloo woon bu ca delloo gannaaw dees na ko teggi loolu daal di koy bàyyi kenn du ko def dara mi ngi noonu mbokk li mu waxoon sànq ci ne jigéen bu indee ëmb ca nekkul ak borom kër dañ koy rey mu ne bu dee jigéen daa ëmb bi ëmb bi feeñi mu naa man kat dafa am ku ma force violé ma ci loolu rek kenn du ko gëm ci loolu xanaa lu dul ñu amoon preuve ci ne ah kay am na koo xam ne moo ko jël force ko yóbbu ko ca àll ba wala dugal ko ci néeg bi yóbbu ko foo xam ne wéet na fa ak moom ba tax mu def loolee mu def wala boog ba ko waa ji violé génn naa ki yuuxoom woo wallu ne diw daf ma violé walla ab jànq boo xam ne ma ngay daw di ñëw deret jay tuuru ci moom mu ne dañ ma violé bu boobaa moom dañuy xam ni lii bu ci ëmb feeñee ëllëgit ndaw si moom kenn du ko wax ca loolee dara mi ngi noonu mu indi benn atte ca mooy bu dee chrétien nag moo ñëw daa di jël benn julit violé ko mu ne ku mel noonu moom dañuy gis fokk dañ koy rey mu ngi noonu chrétien bu violu julit kooku ku mel noonu fokk dañ koy rey bu dee ne réew moo xam ne lislaam moo koy atte moo indi it beneen cas gis nañu sànq ni bokk ni li tax ñu rey nit wala ñu duma ko waa ji wala soxna si moo ñëw ne man ka dama njaaloo waaye bu saxalee loolu ci boppam avant ñuy teg ci moom loi mu wëlbati ko waat ne ah man kat dëgg-dëgg la ma doon wax loolu amut la ma doon wax daal loolu amut su boobaa mu ne maadaama moom dong moo nekkoon seede boppam kenn du teg ci moom la nga xam ne moom mooy looy l'islam boobee loolee mbokk mi ngi noonu xam naa comme bind yi ñu jël xaw na takku bu dee mbokk yi am nañ luñ ci bëgg a laaj bala ñoo gën a sori incha allah bala ñoo jël beneen bind incha allah naam bismillah naam ah ki nga xam ne dafa njaaloo ak ku jigéen doom juddoo ca ndax am na droit askane la ko boppam li ñuy tuddee jumhurul ulama mooy la ëpp ci borom xam-xam yi day dañ ne déedéet maadaama sëy doxul woon digganteem ak soxna sa askane ko ak boppam loolu amul amul lenn loo xam ne dana ko siq ak doom boobee allahuma lu dul am na ca ñu néew ca ñoom ñu ne bu dee ne soxna sa nekkul ci buumu kenn nekkul jaamu kenn nangu ne ne yow dong yaa jur doom ji yow nangu nga ne yaa jur doom ji su boobaa manes na la ko askane askane la ba mu des nag la nga xam ne mooy wàllug ndono nga xam ne suñu yonente alei salatu wasalaam dane doomu njaaloo boobu du bokk ci ñuy donn waaye mënees naa wax ne diw doomu diw la askane la ko bu dee ne amul kenn koo xam ne ni borom këram la wala ko ko moom loolu nag ña gën a néew ñoo ko wax la gën a bari moom la ñu wax mooy déedéet mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah waaleykum salaam ala kulli xaal diine lislaam dañuy xam ne moom mooy alquran ak sunna suñu borom nee na aqimu salaa taxawal leen julli fan lañ gis timis ñetti rakkaa la foñ gis tisbar ñeenti rakkaa la amut kon suñu borom moo ne njaalookat bi dóor leen ko téeméeri yar fan lañ gis rey ga nag rey ga mooy dafa sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ne ki nga xam ne dafa mësa sëy moom nañ ko rey commencement nekkoon na alxuraan juñ doon jàng gannaaw ba suñu borom man suuxal ko sunna saxal atte bi te loolu it boo demee ci bi ñu tuddee an naasix wal man suux aaya yi ak ya koy folli bokk na ca ay atte yu bari am na yoo xam ne njàngin ma rek la ñuy bàyyi waaye atte baa nga fa am na ci yoo xam ne njàngin baa nga fa waaye atte ba kenn jëfeetuutu ko loole mi ngi noonu ala kulli xaal sunna moo saxal ne azani wa azanit wa zani fajriduhum mi ngi yem ci ñi musta sëy waaye koo xam ne mas nga sëy moom sunna def ne nañu la rey lan mooy warugaru jullit ñi ci ñàkk atte woo lislaam warugar bi mooy munkar la lu baaxul la munkar nag yonent bi alayhi salaam dane ku ko gis na ko dindi ak loxoom su dee mënu ko mu dindi ko ak làmmiñam su dee mënu ko mu naqarlu ko ci xolam loolu moo tax ba ku mel ne man ak yéen lañ ca am mooy naqarlu ko suñu xol amma ñi nga xamee ni nii yàlla may na leen lu mel ne député yi nekk ca assemblée di voter ay loi ni ñuy déggee bés bu nekk ñu naan proposition de loi bu député tel dugal yooyu nga xam ne mooy atteb borom bi subhanahu wa taala waree son nañ di ca jéema dugal nànk nànkal seen kemtaleel kattan bañ koo won gannaaw comme niñ ko wone gannaaw waaye amma comme na ma la ko waxe sa pexe yow bu nekkul foofu la nga man rek mooy naqarlu ko sa jaan wàcc ca wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah ay salaam ki nga xam ne dafa am doomi njaaloo wala ba ci ko di ko jàngal wala def lu moom ci lu baax da ci am tuyaaba ah kay bu doon doomi jàmbur sax nga am ci tuyaaba bu doon doom boo for sax nga am ci tuyaaba mooy lépp lu baax loo xam ne dañ koo defal xale loolee tuyaaba la doomi njaaloo amul benn bakkaar boo xam ne tegu na ci moom moog doom yépp a yem ca yàlla su ko defee dañ koo war a jàngal dañ koo war a yar yar bu rafet loole yow ma nekk sabab ba yaa ko defam keñe nu ko def yépp ci bokk yem la nga tey def tuyaa bala joo xam ne yàlla dana la ko fay wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk bi waaw waaw comme ay caméra yu deme noonu ndax caméra dana remplacer CD déedéet mbokk borom xam-xam yi tombeeg caméra dañ ne du remplacer CD CD ay jullit yu maandu ñooy taxaw sayda ko islam da ko nangu te rawatina it ñun ñëpp bokk nañu xam ni tey ni technologie avancée ba caméra mën na am noonu la technologie avancée bañ mën a jël fee waa joo xam ne musul gisanteeg faccaam ñu boole leen ñuy sëy am déet loolu yëpp ku ne xam ne lu yomb la xale yu ndaw yi sax mën nañ ko kon loolu moo tax ba témoignage boo xam ne dañ koy teg ci ay caméra islam du nangu loolu ci wàll atte l'islam même bu dee suñu loi yi dañ koy nangu loolu moom seen mbir la waaye bu dee atte l'islam islam moom du nangu loolu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah waaleykum salaam waa xam naa ko moom question yi dañuy bàyyi ba jeexal ñi ngi fàttali mbokk yi ni question yi nekk ci biir dars bi mooy dafay aju ci liñ jàng suñu jeexalee nag ba pare ca la ñuy doog a ñëw ci question générale yi non bismillah waaw dafa dafa lan dafa fay boppam ala kulli xaal ki nga xam ne day foye boppam loole borom xam-xam yu bari dañ ko boole ca la suñu borom di wax ni daganul ci jullit muy ànd lu dul soxnaam wala jaamam bi jaam di am ku sakku gannaaw loolu ñooñu ñooy tooñkat ya gannaaw loolu bokk na lu ca borom xam-xam yi dugal ki nga xam ne day fay boppam góor ak jigéen ba am banneexu ñay sëy di am loolee da ngay gis dañ ko caa boole ci wàllu googe muy misuba boo xam ne nii ndaw ñi war koo bàyyi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solution bam ñu joxoon mooy jeune bi mënugul amagul lum sëye nga la way nay woor koor googu dana doon lu koy fekk waaye waxul nay jëfandikoo ay loxoom wala ay poupée wala ay kaza wa kaza pour mën a remplacer loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam naam bismillah waaw waaw naam bismillah waaw xam naa ñu jël beneen question bi bu doon li nga xam ne dafa takk ñeenti jabar ci lislaam ba pare dem takk keneen ne moom soxnaam la ndax loole xadd day tege ci kawam na am mbokk xadd day tege ci kawam su dee ne kay moom xam ne ne ne jullit du paase ñeenti jabar loole moom islaam nanguwul jullit di paase ñeenti jabar soo xisee ba paase ñeenti jabar suñu borom yàlla arrêté na la foofu léegi-léeg sax mën na gën a garaaw njaaloo mën na gën a garaaw njaaloo ndax ki takk ñeenti jabar ba pare dem takk keneen jàpp ne kooku dagan na bokkul ak kay di njaaloo xam ne njaaloo daa xaram kay di njaaloo xam ne njaaloo daa xaram kabair la def bakkaar bu mag la def kay nag dafa indi pas-pas dafa dàq li yàlla subhanahu wa taala tëral te suñu borom mu ne jullit ñi qad alimna ma faradna alayhim min azwajihim li ma farataal ci ñoom xam nañ ko te yàlla wax na ko masna wa thulaas wa ruba ñeenti ñi leen la farataal sahabatul kiram mboole seen kenn musu cee passé ñeent yonent bi alayhi salaam am na ñu daan tuub indi juróom mu ne fasal kenn am na ko tuub indi fukk mu ne ko jël ci ñeent fasal juróom benn yi kon ku mel noonu da ngay gis ne bu dee ne xamul dañu koy woo ne ko hey julit nga mun a waaw lii dafa xaram ci yow amma bu nekkee ci dëkkub lislaam xam comprendre ne julit ñeent la la yor ba pare mu dem takk juróomeel loolee mbokk musiba la ni rek nga xam ne dafa dem takk jarbaatam wala takk ab sëram ne ñaaree la ko wala ñettee la ko kookee la muy def moo gën a garaw kay njaaloo ndax kookee dafa daganal lu yàlla xaraamal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw ala kulli xaal waaw waaw waaw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon muy wàññi da koo takkoon avant muy dugg ci lislaam amma ki takk juróomeelu soxna buñ koy wàññiloo kam mujj takk lay wàññi kooko bokkul ndax moom bokkul ñeenti ñoom ña nga xam ne ñooy ña valable juróomeel bale valableul ci lislaam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw mbokk yi bi dafa mel ni am na ku doon laaj ci mu ne soxna bi ndax am na droit wax borom këram ala kulli xaal ku tedd ki déggin ba nga xamee ne nii bu dee déggin général mooy képp koo xam ne ni ko baax la lu dul ni doomu aadama yi toujours dañuy créer ay mbir yoo xamee ne nii des fois dañ koy yéegi fu bokkul ak faka maam yi xamee woon nit ku tedd moom mooy nit ku baax rek ñu ngi noonu bu doon te ne jubluwaay bi daal mooy borom kër gi ko baax la mu jàpp ne ku tedd la ko ko baax la amma nag buñ ci jubloo koo xam ne nii ku tedd ki mooy ku sell ki loolee mbokk suñu boroom daf ñuy wax ne fala tuzakku anfusakum huwa aalam bi man ittaqa bu leen sellal seen bakkan yàlla xam ki sell loolu mbokk mi ngi noonu ba nga xamee ne li nekkoon cosaan ci borom kër ak soxnaam na xool lay aaday waa dëkk ba mu koy def bu duggul ci loo xam ne nii lu xaraam la bu dee ne la nga xam ne mooy aljuma doonte ne dañuy wax ba sonn mi nit ñi neexuñu waxal képp koo xam ne dafa ñëw ci aljuma warul nekk di taxaw gannaaw imaam lu dul ne daa amul feneen fu mu taxaw tant que am nañ feneen fuñ taxaw ñëpp dañu war a taxaw ci gannaaw imaam amma nag bu dee amoo foo taxaw ci gannaaw imaam su boobaa mën ngaa jiitu imaam waaye daal jiitu imaam warul fekk ne yow am nga foo taxaw ci gannaaw imaam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw am na beneen mbokk bu doon laaj fii laaj bu bokk la kii waaw bismillah mu ne ah ki nga xam ne dafa faatu fekk ne dafa yor bor ci koor fa mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax naan képp ko faatu fekk dafa yor bor saama anhu waliyuhu mu ne ko mel noonu ay péetéem daañ ko wooral koor googee su ko defee way juróomam doomam xatta yow mi borom këram soo ko ko wooralee koor gi dana ko wàcc su doon te ne nag lu mel ne mazhab malik ñoom dañ naan ku mel noonu dañ koy leleel mooy amoon na fukki fani koor dañ koy leleel bis bu nekk ñu sarxel ko ca fukki sarxel ko kilo ceeb muy 10 kilo loolu mi ngi noonu waaye yër sax na ci sunna ñu wooral ko ñaar yooyu luñ ca def rek insha allah baax na wallahu subhanahu wa taala alam naam mu ne lay cosaan ci leel miskin mooy ñu am nombre miskin ba ngay leel masalan fukki miskin ñu am fukki miskin ku na ñu jox ko su ngant amee nag lañ koy doog a yeme la ca nombre miskin yi ñu am waaye xatta ñi am nattu ba wax loo xam ne dañu war a leel juróom benn fukki miskin waroon nañ def effort am juróom benn fukki miskin suñ ko amul nag mën ngaa gis kër goo xam ne xëy na dañoo néew doole fukki nit ña nga foofu nga considéré fukki miskin mi ngi noonu ba baa muy mat ci say loxo su dee ngant moo am wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah waaw yomana doo kulla unaasin bi imaamihi loole ku nekk ka nga jëloon mooy sa royukaay kooku lañ lay woowe ka nga jëloon moom nga doon topp ci àdduna masalan firawna imam la ëllëg dañ ko dañ woo firawna ak ña ko toppoon ja'alnahum a'imma loolu la yàlla wax firawna ak notable ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar def nañ leen imam yu woote sawara su ko defee yal nañ yàlla boole ci jël yonent bi alayhi salatu wasalam muy seen imam waaw ki nga xam ne yonent bi mooy sa royukaay te yonent bi lañ lay woowee amma ka jël pôle mooy royukaayam ca pôle lañ koy woowee ka jël dem ba royukaayam dem ba lañ koy woowee ça ne veut pas dire que ne ni imaamu jàkka tey jii ñu bëri da ngay gis dañu nekk ci jàkka kay ma nga gëmlee kay gëm leneen kay gëm leneen nu ñu noonu allahuma la dul imam ba nekkoon koo xamee ne nii ku daan jàngale diine la nit ñi doyloo ko ci loolu topp ko ci loolu kooku moom dañ ko dañ dañ woo mbooloom ci loolu benn way ñëw na ci imaamu ma imaamu Ali ibn Abi Talib nekk laaj ko ay question yu bëri ci yi gën a compliqué ci diine te mooy question dogalu yàlla imaam leeralal ko yépp bi mu demee bi mu paree mu ne ko yow day yow yaay imaam bi nga xam ne yaakaar nañ topp gi ñu lay topp yowmal qiyaama yàlla dana ñu jéggal yërëm ñu lan moo waral loolu mooy du ne parce que doomu bàyyi yonent bi la wala ab shérif la comme niñ koy waxe déedéet daf na ko aw daxta min diinina ma kaana multabisan li lëntul suñu diine yépp leeralal leeralal nañu ko kon fa jazaka allahu bil ihsani ihsana loolee daal ci gàttal képp koo xam ne moom nga def sa royukaay ci sa wàllu diine sa wàllu lu mën a doon nga xam ne moom ngay déglu ku mel noonu mooy si imam soo baaxee da ngeen ànd dem aljanna su baaxul da ngeen ànd dem sawara moo tax suñu borom ne kullu unaasin ku nekk dañ ko woo bi imaamihim bokkul ak nag na yàlla subhanahu wa taala di woote bépp mbooloo ci seen yonent loolu moom day am bépp mbooloo dañ leen woo seen yonent xaw ma noo Huud ba umma yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp dañ leen woo woo ummatu muhammad su boobaa beneen atte la bu bokkul ak la nga xam ne atte royukaay la wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw waaw ñaari góor ñoo taxaw ak mbooloom jigéen di julli ñaari góor ñi dañuy sësaloo mbooloo jigéen ba nekk seen gannaaw su doon am na fa benn xale bu ràññee nga xam ne buñ ko taxawloo place xam ne luy julli même bu doon cinq ans la am waaye ràññee na ci julli ku mel noonu benn góor ba ak benn xale ba ñoom ñooy taxaw ci loolu ñooy taxaw ci gannaaw imaam comme naka Anas ibn Malik nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day ñëw na suñu kër bi mu ñëwee mi ngi sàppee moo sama bay tax ci kanam mi mi mi ngi ñu jiite maag sama bay tax ñoo nekk ci gannaaw te Anas bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu Madina dix ans la am mu ne sunu yaay taxaw ca gannaaw loolee kon bu dee ñaari góor rek dañuy sës bu dee ñaari góor lañ ak benn xale ak lum ndaw ndaw ca ràññee julli benn góor ba ak benn xale ba dañuy taxaw ci gannaaw imaam soxna sa moom nekk ca gannaaw wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw bismillah waaw waaw bismillah mu ne azaka ndax dañ koy distribuer wala dañ koy xool nam toll mu jox ko nit loolu ça dépend ci azaka ba su dee ne lu yaatu la dañ koy yaatal waaye ki doon xam ne dafa génne woon vingt mille francs azaka wala azaka mën na nekk sax dix mille loolee mën nga ko jox kenn nit ala kulli xaal bu yaatoo dañ koy yaatal bu néewee ñu néewal ko wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal mbokk jullit yi bu dee ne bañ a ah waaw douze la ñu war a julli waaw bismillah mu ne SAD waa test ADN moo caméra yi ñu doon wax ñoo bokk yem xam nañ ne test ADN mën nañoo ñëw xool xale bi ne kii day diw moo ko jur walla xool ne diw juru ko mais l'islam du basé wu ci loolu sama benn xarit bu nekk États-Unis mi may wax seen benn góor gu ñu dëkkal mu doon indi ay doomam pour ñu rejoindre ko États-Unis ñoom léegi dañ leen di laaj test ADN mu am ci ñaari doom yoo xam ne dañ ne ko ñii ñoom juróo leen boo ko xoolal fitna boobu ñoo xam ne dem nañ ba nekk mag ñu ne la ñii ñii duñu say doom mais loolu mbokk moom xel mën na ñaaw ci loolu waaye nag bu dee ci lislaam kenn du sukkandiku ci loolu da nga noonu kenn du sukkandiku ci loolu ak noonu itamit test ADN néew bi mën nañ ko rey léegi buñ ñëwee ak police judiciaire bu ñu xoolee empreinte yi mën nañu xam lii diw moo mujj ci moom na am bu dee seen loi ñoom dañ ci sukkandiku waaye bu dee loi lislaam maadaama amul preuve seede yu ko gis islam du nangu loolu loolu daal mooy la nga xam ne moom la ñuy wax ci wàllu googee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam dana ci bokk sax xatta xaj xaj yi tey ji am na xaj boo xam ne bu sàcc ñëwoon fii léegi sàcc fi xaj bu ñëwee mën na ko topp ba ñu xotti ko fu mën a nekk di xam ngeen looloo waaye loolu moo jiitu woon ay test ADN ak i caméra mais même loolu borom xam-xam yi daawuñu ko nangu daawuñu ko nangu donte ne xel mën na ko nangu waaye nag ci acte bi l'islam daawuñu nangu acte boobee fokk waa ji ñu am preuve ay nit gis ko mais pas ay xaj ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah waaw lan mooy lan mooy lan ah mansuux ah mansuux waaw mansuux lañu tudd abrogé mooy loi yoo xam ne suñu boroom daf ko abrogé masalan njaaloo gi ñuy wax suñu boroom dani su dee ne jigéen njaaloo na fastashhidu arbaatan minkum ut leen ñeenti seede fa in shahidu ah famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al mawt atte bi yàlla jëkkoon a wàcce jigéen buñ ko gisee muy njaaloo dañ koy tëj ci kër gi dootul teg tànkam ci buntu kër gi ba baa muy dee atte boobu la yàlla jëkk a wàcce gannaaw ba nag suñu borom yàlla dindi loolu ne bu dee musul sëy du ma leen ko téeméer bàyyi ko mu dem waaye bu dee mas naa sëy moom rey leen ko lam jëkkoon a wàcc ci góor guy njaaloo daf ne fa azuhuma bu ñu xamee ni du njaaloo la fu mu romb gaa yi yu yuuxu ko sabote ko dóor ko ay dal xëpp ko suuf azuhuma lor ko ci société bi xatal ko ci société bi ba baa nag suñu borom doog a indi nag atte ay yeneen loi ne bu dee musul sëy duma leen ko bu dee musul sëy rey leen ko loolu misaal la ci li ñuy tuddee ay lu ñu tuddee mansuux muy lu ñu tuddee lu ñu abrogé ala kulli xaal mbokk jullit lii mooy li yàlla dogaloon tey ñu war ko fi wax li ci dëppoo ngërëmam yal na yàlla wërsëgal ñu jëfe ko tam nangul ñu ko lépp lu tey njuum te yal nañ ko xamal ñu moytu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain